saytu ñam yi mu dem itam fekk ko fa mu nekk mu jël leen ngir sànq leen ndax loole ëpp naa jëfandikoo moo waral ñu taal leen nii ci wàllu xabaar itam xam ne nañ ne wàllu tàngoor wi day doon loo xam ne nii lu mel ni lu xaw a tar la ci diwaan bi doon diwaanu Kaolack moo waral nag ñenn ñi nga xam ne nii dañoo am yenn tawat yoo xamante ni tàngoor dana koy yëngal ñu dem itam ci kër docteur yi ngir saytu la ni mel loolu daal Claire Diop xamal nañu ne doon na ittey docteur yi ak ñi nga xam ne itam ñoo fa am yenn xeetu jàngoro yooyu li ñuy tàmbalee moo di itey njiitu mi moom président Bassirou Diomaye fay tey jii xëyee na fi dem ca Abidjan doon pays réewu Côte d'Ivoire fofé nak ba mu fay dem na mu yegg na fa inshallah dinañ am bata band bu fa joggé waaye li nak band bi nga xamni ci lay taggo ak premier ministre la ak kilifa yi nga xamni tam itam ñoo ngànk ngóor gi ni ñu koy wo di défé sa su kilifa di génn ñu dem itam tagguto ak mom itam di ak mom ci l'aéroport ba lañ ko defee ndiki tay ji ci suba ñu faté né inshallah mom président de la république di Bassirou diomay fay dem na ci Côte d'Ivoire ngir amal tukki nimiko bo xamni ni la ko taxajuk modi gëna soxat digënté Sénégal ak réew mi nga xamni ni itam moom moo doon réew mu Côte d'Ivoire gannaaw loolu itam ni ñu koy waxee ci njëlbeenu xabaar yi kii di premier ministre Ousmane Sonko doon na dalal ni ki tey jii jëwriñ ñi nga xam ne dafa jóge ci Arabie Saoudite nañ dënk lépp lu jëm ci wàllu ndox mi mu nekk itam waxtaan woo xam ne nii di soog sottante xalaat di ci diggante ñaari kilifa yi rawate nag li soxal pàccum ndox mi loolee nag ba ñuy waxtaan ak diisoo ak itam doon am lu ñu doon tënk aram ndaw teew na ca bam nuñu ca jukkil jëwriñ bi premier ministre Ousmane Sonko dalal mi ngi bawoo Arabie Saoudite moo yor lépp lu jëm ci wàllu gàncax gi wàllu ndox ak wàllu mbay loolu yëpp nag ñu waxtaanee ko ci audience bi nga xam ne yaatu woon na Sénégal ak Arabie Saoudite daal di jàpp ne fukki fànn ngi ni war nañ ci mën a gën a lëkkaloo mu bokk ci nag wàllu ndox mi ñaari réew yi bëgg rekk amal li ñuy woowee autoroute de depuis démb bi ñu egsee ba léegi euh, euh, am nañ def nañ ñaari euh, session de travail avant ñuy toog ak premier ministre bi waxtaan nañ waxtaan bi nag def dañ ko mun nañ ko tënk ci fukki point on a wax nañ lu bëri ci ci autoroute eau parce que damay wax souvent ma ne mbay mënta am su ndox amul au nord du Sénégal Euh, am nañ fa ndox moom mooy fi nga xam ne nii moom mooy le fleuve Sénégal te OMV géré ko ñu bokk ko euh, euh, Mauritanie ak Mali peut-être waxtaan nañu nan la ñuy indee par exemple construire benn canal jëlee ko ci ci au nord du du fleuve peut-être dem ba dans des villes comme Touba maintenant fu mu jaar rek mën nañ faa bay et que et que et que loolu lu ñu rafet la loo xam ne ni peut-être mën nañ ci gëstu. ministre bi bawu Arabie Saoudite ne réewam noppi naa lëkkaloo ak Sénégal ci fànn yi yëpp muy firndeel ne dinañ def seen kéem kàttan ngir rek secteur privé bu Arabie Saoudite waaye bu Sénégal mën a lëkkaloo ci fànn yi nga xam ne soxal na ñaari réew yi. Euh, wax nañ aussi que ne au sud dans les régions du sud moo xam Ziguinchor le Sédhiou Kolda Kédougou euh, ak Kolda. Tamba war nañ fa comme pluviométrie bi baax na foofu war nañ faa mën a bay soja war nañ faa mën a bay maïs war nañ faa mën a bay ceeb war nañ faa mën a bay arachide te loolu yëpp soo ko soo ko soo ko exploité ni nga ko war a exploité euh, non seulement autosuffisance danañ ko am mais dafay daf lay aussi permettre nga nga développer élévage bi parce que euh, ku bay euh, mboq mën nga def ensilage te soo defee engilage mën nga def meew mën nga yor jur donc si ci ci partenariat yooyu daal lañu lañu la ñu waxtaan Euh, euh, le Sénégal est est un pays frère et le Sénégal est prêt à euh, parrainer pour appeler investisseurs saoudiens ensemble avec investisseurs privés locaux premier ministre Ousmane Sonko jiite Kangamou, ministère yi teewe ministère agriculture bu Arabie Saoudite white bu Sénégal bataille Djourin Djibao, Arabie Saoudite ànd ak kuréel gi nga xam ne moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu sécurité alimentaire ci seen réew maanaam di bay di dundee waaye di mënal sa bopp ci wàllu mbay seen délégation ba tey bokk na ci société bi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu investissement di dugg ci mbay mi ak si càmm gi ñoom ñoo koy saytu. jërëjëf Aram ci li nga xam ne nii moo soxal itam yenn ndaje yi tey jii ci yoor yoor amuloon nañ ndaje moo xam ne nii la ko tax a jóg mooy xool ñi yor itam ay palang nas ko itam ba mu doon loo xam itam lu nosu la ñu am ay mébét ngir mën a am lu ñu suuxat ci wàllu kopar am itam ay liggéey yoo xam ne dañu koy saytu ñooñu nag ñoo lëngoo ak ñi nga xam ne ñoo fàll ci wàllu privé bi doon itam ay boroomi koppar sos seen i këru liggéeyukaay ngir ñu xool itam nan la ñuy mën a ànd ci seen biir ngir lii doon itam bëgg mu di fexe ba am ay xëy ngir ndaw ñi loolu doon loo xam ne itam lu mën a yëwan lay

ñi ngi koy jagleel kërëb liggéeykaay kayu privé yi kuréel yi nga xamante ni dañuy liggéey ci loo xamante ni du wàllum xaalis rek waaye ak partenaire public yi bile nag kuréel dinañu subventionné ay projet yu wóor te mucc ayib yoo xamante ni dafay jur ay xëy. projet qui peine à trouver un financement adéquat sur le marché. projet yu ñuy tànn ci anam yu mu gën a leeree daañu leen gunge ci lu toll. avec de subventions lu toll ci six euros jàpp juróomi million si kopparu euro ba tey loolu mooy ak jàppandalu lii de IFE di benn instrument boo xamante ni nii réewum Allemagne moo si bëgg a jaaree ngir soutenir ay projet yoo xamante ni am nañ ci yaakaar mu ànd ak innovation ba pare war a nekk luy yàgg. à participer à ce cinquième appel à proposition de projet de l'IFE. nguur gi rafetlu initiative bi le ne pare nañu ngir gunge leen. La facilité d'investissement pour l'emploi est un nouvel instrument financier de la coopération allemande. financement bi nga xamni day jëm ci yombal créer liguey fi ci Sénégal day lu am solo te it day doole rek li nga coopération bi dox Sénégal ak réew mi di Allemagne.

entrepreneur yu bëri ñëw teewe ndaje mi lee ngir ëllëg ci biir ñi di waa facilité investissement pour l'emploi euh, mën leen a gunge euh, ba ñu gën a mën a suqaliku a def itam ndaw yu bëri mën a am xëy jërëjëf euh, ki nga xam ne nii moo doon Marème Birame Ba juróom-ñaari fan ci weeru euh, war avril day doon bés boo xam ne nii kenn dootu ko fàtte mu nekk bés boo xam ne nii itam ci la ñu tàmbali woon xeex bi ak xeexoo bi amoon ci réew mi doon réewum Rwanda ci diggante ay xeet ak diggante waaso ba bakkan yu bëri faatu ci fii nag ci suñum réew am na ndaje moo xam ne nii ay kilifa doon nañu ko amal ngir fàttaliku bés yu tiis yooyu ngir bu mbañatee am bu mukk kenn mbañatee xalaatitu lu ni mel ñu teewlu Seydina Aline Fall ma ñu fa yebaloon ay semaine ci ginnaaw ca Rwanda président Paul Kagame di nag jiite cérémonie solennelle commémoration génocide bi nga xamante ne amaloon nañ ko jëmale ko si tutsi yi euh, fii nag ci Sénégal euh, mu am conférence internationale boo xamante ne ni amal nañ ko euh, ca CESAC ngir fàttaliku nag génocide bi nga xamante ne ni fanweeri at ci ginnaaw amoon na foofu ci Rwanda. génocide boobu ca Rwanda am na lu tollook euh, million nit ñoo xamante ne ñàkkoon nañ ci seeni bakkan ñu koy ko nag fépp ci àdduna ndaje mi nag euh, dajale ay experts universitaire ak i tamit euh, ay ndongo yoo xamante ne nii dañu bàyyeekoo ci ay école formation lu ci mel ni CESTI. kër xabaar bu tudd Rwanda bi tuddoon rajo télévision Mille Collines liggéey bu mu liggéey tax na li indi génocide boobu amoon 1994 donc. Euh, loolu dafa tax ñun ñi xam dañuy tàggat ay xale ci mbirum euh, xarale yi ci mbirum journalisme ñu indi leen fii tey ñu xam ni journaliste liggéeyam mooy joxe ay kàddu yu am solo ay kàddu yuy boole ay kàddu yoo xamante ne du féewale askan bi te lépp lu ñuy dox dañuy dox ci jàmm dañuy jox ci teraanga mais aussi dañuy dox ci dëgg loolu buñ ko defee dina tax ñoom euh, tey jii li leen fi indi dina ñëw mën a waxtaan ak ay kilifa yoo xamante ne ci àdduna bi lañ jógee ak ci dëkk bi waxtaan ak ñoom ci rôlu média waxtaan ak ñoom aussi si taxawaay bi nga xamante ne amoon nañ ko yenn média yi amoon nañ ko 1994 mu permettre leen ñu basé wu ci expérience boobu pour gën a ñoŋal ni ñu mën a defee seen liggéey. juróom-ñaari fan ci weeru avril nekk li nga xamante ne moo di mandargal tàmbaleb génocide bi nga xamante ne ni amal nañ ko jëmale ko ci tutsi yi ci Rwanda. loole nag gouvernement bi nga xamante ne nii nag euh, nekkoon na gouvernement utu ñoo ko amaloon euh, ci téeméeri fan yi nga xamante ne nii nag tegu na ci nag amoon na lu tolloog million si ak i tamit ay utu yoo xamante ne nii dañoo jàpp ne ay modéré lañ ñoom euh, faat nañ leen nag foofu ca Rwanda ca atum 1994. jërëjëf Seydina ki nga xam ne moo doon médiateur de la République doon kilifa goo xam ne nii. dañu ko sas ngir mu yor jikkoy puso itam di am loo xam ne nii da koy gaar waaye eh, doon loo xam ne itam da koy keppalante ci loo xam ne itam ay diggante yu amoon fantasiro la moom nag moo ne coowul suuf li nga xam ne itam ñi ngi koy yëngu mu ngi am ci suñum réew day ak li nga xam ne itam moo doon matuwaay yi ñu jël ak léegi-léegi itam lu muy jur ci li nga xam ne moo doon yéeg ak wàcc dafay laaj ñu amal ci waxtaan ak diisoog sottante xalaat ngir ñoom itam lañ ci xalaat seeni borom xam-xam seen xalaat yu rafet ñu jébbal ko kilifa yi ba ñu mën cee woon a arte woo loolu nag doon na waxtaan woo xam ne ni bañ koy amal Mamadou Sakine lañ fa yebaloon wàllum suuf bokk na ci problème yu gën a rëy ci réew mi lan la ñu war a def ngir saafara bi le jafe-jafe looloo waral ndaje mi médiature de la république woote. li ñuy wax fii naan littoral bi am na ñu am nekk ci littoral bi yàllaa leen baaxee man loolu waxuma la mais littoral bi am na lu ko lu lu ni moom nekk ci biir suuf si ñu koy bàyyee muy dem mooy tool yi ñuy bàyyi paysans yi di ko jaay amuñu këyit amuñu dara naan sama suufu maam la sa maam bu la joxee téye ba jox la da ngaa war a téye ba jox sa sët. waaye waruloo jaay boo jaayee ja arrêté nga euh, kii bi mode de dévolution bi loolu nag dafa am ñu ko war a saytu da ci am ñu ci war a wax. baykat yi ak càmmkat yi lu ñaan mooy waxtaan ak acteurs yi yëpp ngir saafara jile jàngoro. li ñuy défendre nag mooy baykat ba sa dëkk ba ba sa këram ba sa àll ba nan la ñuy def ba bañ ko xañ suufam nan lañu ñuy def ba keneen ñëw di ko buux di ko xañ suufam nan lañu ñuy def ba suufam mu liggéey ko. nan la ñuy def ba suufam mu tal ko bu wane ni kenn mënul tëb rek ñëw nangu ko. waxtaan yi tax na ñi newoon ci ndaje mi xam lu bari lépp luy jëm ci domaine national ak domaine de l'État. chaque jour quand on se lève on voit quelqu'un céder national. bis bu ne suñu yeewoo dañuy gis ne ay suuf yu bokk ci domaine national dañu koy joxe te loolu dañu koy aaye. article 423 du code pénal naka noonu article L311 du code de l'urbanisme ñaari article yoyu ñoko ko bokk Dans l'esprit du code du domaine de l'État, c'est la concession du droit de superficie qui devait servir à l'habitation. ci ñaari bés universitaires yi ak ñi bokk ci société civile dinay xotal waxtan bi bu ñu paree jëbbal ko kilifa yi. jërëjëf euh, Mamadou Sakiné xam nañ ne jamono yi euh, am na yu beeral goo xam ne bëreel nañ ko. ñiy jox ndigal mbaa itam ñi am sañ-sañu di napp ci yaaxu réewum Sénégal moo xam fii ci suñu ñu dëkk fii ay gaal yu nekk fii suñu réew moo xam itam gaal yoo xam dañoo boobu ci suñu biir réew te ñu jox leen sañ-sañ boobu loolu nag moo waral Abdou Wade ma nekk ca Ndar xam ne itam Ndar dëkku napp la mu am itam liggéente boo xam ne itam def na ko ci wàllu woowu ñu teelu ci ab gëstoom mobilisation bu am solo la ñu amal tey jii ci dimanche lopp nag ñeen fukki association ak mouvement ñoom nag ñoo takku ngir ànd ak ki nga xam ne moom mooy chef de l'État ci décision bi nga xam ne ko ngir dakkal liggéey yi nga xam ne ñu ngi ko doon def ci bi. ñi dëkk ci tefes yi jógee Ndar ba Foñi Casamance jóge tefesu Ndakaaru yëpp ànd ak ay organisation yi nga xam ne seen liggéey ci wàllu environnement la ne pour ñu ni ñun dañuy jàppale président de la République Diomaye fay son excellence ci li nga xam ne jàpp na ko ci dogal. ni lépp lu nga xam ni def nañ ko ci booru géej gi ci tefes yi te jaarul yoon dana ko fi jëlee suñu loi dafa wax depuis suñu charte fondamentale muy constitution yeneen takk yi nga xam ni dañ ko takk mu jëm ci wàllu alam bi ci wàllu urbanisme ci wàllu marin ci wàllu tefes yi takk yooyu yëpp dañu ni tefes gi tefesu buur la nit moomu ko te ci diggante tefes yi fi ndox mi nga xam ni fa lay dal gandax bi gën a kawe fa muy dal ba téeméeri metre foofu nit amul sañsañ tabax fa tabax bu diis waru fa tabax béton waroo fa cimenté waroo ko def euh, euh, ay briques la nga war a def ci béréb boobu mooy lu neex a samp lu neex a simpi. mais boo toppee tefes yi am na ay hôtelu juróom-ñetti étage am na ñu tabax ay këru milliards dem nañu ba dañuy daaneel falaise bi daaneel mamel sëkk géej gi pour tabax. fii nag nga xam ne nii moom mooy plage Diamalaye moom lañ tànn ngir amal ci ndaje bi lii nag mën nañu wax ne sax dañ ko def ginnaaw bu ñu amalee ay gëstu yu bëri. fii rek ngay xool ni cent yi nga xam ne dañu wax kenn waru koo dëkkee ci booru tefes gi kër yi fi njëkk def fi ñaar fukki at wala fanweeri at bàyyi nañu béréb boobu mais ci gannaaw béréb boobu ñu wax ni kenn waru koo dëkkee ñooñu dëkkee nañ ko ba def tabax ko ay kër yu baree baree bari ba am na encore ñu yore ay titre moomuñu ko dafa nekk exemple bu leer li ñuy wax li président wax firnde bi amnañ ko fi ci jàmmalaay loolu motax ñu ñëw ànd ak conseil de quartier bi ànd ak waa commune bi ànd ak Dakar pour wax ni li ñu def jaaduwul suñu mémorandum loolu ñu lañ ciy bind ba pare yóbbal ko jox ko président de la république. délégué de quartier ak ñi nga xam ne ñoom notable lébu yi ñom tamit and nañ ak li ni mel. ñuy saluer action bi wa littoral bi def. ñëpp war a roy si ñoom pour kii nga xamante ni kii dafa fas yéene jubbanti doxal man ka def mu mucc ayib. man li ma am fii am naa fi ñetti parcelle muy titre foncier boo xamante ne bii. pour wan leen ne man d'accord naa si man je suis prêt renoncé naa ci parcelle yooyu parcelle yaa ngi fii kenn tabaxu ko. donc ñuy xamal rek ne président vraiment coutume bi Yoff collectivité lébu Ngor Wakaam tànk ñu ngi ci gannaaw pour mu jooyanti jubbanti. ci fan yi di ñëw nag ne dina amal ab dox boo xam ne nii lu toll ci fukki junne nit dinañ ci bokk solo si nag mooy ñu gën a fësal ànd bi nga xam ne ànd nañ ko ak njiitu réew mi ngir ñu dakkal liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko doon def fii ci littoral bi. jërëjëf Saliou Seck kon ñu indi ak jooyante loolu doon na band boo xam ne ni yow Saliou Seck yaa ñu doon toppal li nga xam ne war na rafetlu gu ñenn itam ci askan wi nekk foofee ca boori tefes rafetlu lool dogal bi nga xam ne moom la njiitu mi jël ci li xam ne moo doon itam tabax gi ñuy tabax ci littoral bi maanaam tefes gi kon incha allah dinañ dellu si ci bande bi nga xam ne ni moom la ñu euh, kii di Abdou Wade defal te mu soxal itam ndar ak lii doon lii doon licence de pêche bi maanaam euh, kilif euh, cër yi nga xam ne ñu ngi koy joxe ak ndigal yi ñuy joxe itam ngir ñu am ñu sañ-sañu napp fenn fenn fi dañuy dem nag ca Abidjan doon pays réewu Côte d'Ivoire ndax bande bi jàppandi na njiitu réew mi foofee nga xam ne moo doon Abidjan ca ngan gam fay amal ñu teewlu ci Omar Ñing Abidjan di pàcc bu am solo ci tournée bi président Bassirou diomay fay di def jamono yile euh, ci suñu naataango yi bi mu yegsee nag vice président wu réew mi moo ko dalal ak délégation bi nga xam ni moom la àndal fii ci réew mi nag di wane rek solo bi nga xamante ni réew Côte d'Ivoire moom la jox visite bi président Bassirou Diomaye fay di amal fii ci réew mi gannaaw nag ba ñu dalee tuuti ci pavillon présidentiel bi ci biti communauté sénégalaise bi ñoom it ñëw nañu wan seen mbégte président bassiri Diomaye fay gannaaw teeru bi nag ñu jubale ca palais présidentiel ba fii nag njiitu réew mi bi mu yegsee jaar na ci troupe yi dem nuyu euh, président Alassane Ouattara mii nga xam ni mbégte la wane dalal ko fii ci palais de la République bu Côte d'Ivoire gannaaw accueil bi nag ñaari njiitu réew yi ànd nañu waxtaan ci tête bu ñu amal mujj gi nag ñu fésal ko ci jano bu ñu doon am ak taskati xibaar yi ku ci ne yëkkati sa kàddu wax mbégte euh, ci li nga xam ni mooy diggante Sénégal ak Côte d'Ivoire mu yàgg lool dalee ko ci président Léopold Senghor ak Félix Houphouët-Boigny moom nag président Bassirou Diomaye fay wax ni tey mi ngi bég lool di def li ko war ci wàllu woowule président Alassane Ouattara moom it wax ne mi ngi bég lool euh, di wéyal loolu mu wax nag ne Sénégal ak Côte d'Ivoire

ci Afrique sow jant. jërëjëf Omar yow mi ànd ak njiitu réew mi foofee ci Abidjan doon pays réewu Côte d'Ivoire ci tukki bi nga xam ne nii njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Faye ma ngi koy amal foofu ba gisee fa ak nattangoom bi nga xam ne nii moo doon Alassane Ouattara. Euh, ni ñu ko doon waxee sànq itam ci xabaar yi euh, gannaaw ba euh, itam njëwriñ ji ñu dënk lépp lu jëm ci wàllu napp gi ak koom mi tukkee ci géej gi bëralee ñi nga xam ne itam ñoom la ñu jox sañ-sañ jox leen ndogal ngir ñu mën itam am napp gu ñuy napp ci waaxu Sénégal day am na ci gëstu boo xam ne Saliou sekk def na ko am itam waxtaan bu mu ci waxtaan ak ñi nga xam itam dañuy yëngatu ci wàllu napp gi ñu ne daal loolu doon lu ñu rafetlu lool te bëgg nañ itam ñu gën a xóotal li nga xam ne nii moo doon mat googu ñu ci wane ñu teewlu ko ci quai de bu Yoff uh, fii nag lu ñu fi nemmeeku mooy ñenn ci nappkat yi demoon nag ñëw nañ ngir indi li nga xam ne ni moom lañ napp lu ñu indi nag mën nañu wax ne sax léegi jën am na muy loo xam ne ni nemmeeku nañ ko ci fan yi période bi dafa di période boo xam ne cooroon la cooroon moom en général jën day tane day tane loolu tane boobu muy tane sax des fois dina xaw nax ñu bari loolu mooy xool dëkk boo mën a dem boo déggee muy jàmbat ay chambre froid rek période bi moo tax. parce que période bi day bu jën tuuroo ñu mën a am fuñ ko fuñ ko dugal si chambre froide loolu moo waral mu nekk période boo xam ne lu jën ñàkk-ñàkk mën na jël benn semaine ba ñaari semaine nii après jën tuuru si ba xaw ñu jaaxal quoi mooy période bi ngeen ñëwee tey si quai de pêche bu Yoff ci Soumbédioune nag leneen lañ fi gis fi nag nappkat yi lu ñu wax mooy génne nañ xaalis yu bëri ngir dem nappi waaye nag amuñ jën yu bëri géej gi tey daal neexul quatre heures du matin lañ tëmb vraiment léegi lañ teer tuuti jën lañ jàpp géej gi fan neexul géej gi amul jën fan yi moom lépp ñu ngi jooyee parce que fan yi doo xoolee Sumbujum fan doo xoolee gaal yu bëri ñu géej metti na trop vraiment. moom nag li nga xam ne nii moo leen di sonal nag bokk na mooy bato yi nga xam ne nii ñoom ñooy napp jën yi muy loo xam ne nii nag ñoom ñu ngi koy ñaawlu bu baax looloo war a sax ñu ngi rafetlu bu baax doxalin bu bees bi nga xam ne nguur gi indi na ko ngir leeral li nga xam ne nii moom mooy licence de pêche yi. ñun mool yi vraiment gis nañ loolu rafet na trop waaye ñoom tamit vraiment nañu gën a lu ñu publier nekk si si affaire yu géej na am contrôle. na am parce que dama loolu na mu ko mës gis si géej parce que ñu dañuy dem géej guddi di fanaan parce que saa dañ naan licence dañ ko dañuy bàyyi mu sedd waaye guddi gi mbaal bote mbaal li bote yi dañuy ñëw guddi gi di def mbaal diri di guddi gi ay deux heures du matin napp guddi gi seen ñi ñi ñi ñuy tubba jëni loolu contrôle bi maa ngi koy wax président Diomaye ñu bàyyi si xel ñu xam actuellement ñan ñoo nekk si géej gi di si nappe ak ñan ñoo koy bénéficié woo ak ñan ñoo fi dëkk ak ñan ñoo fi dëkkul

yéegal leen si kaw ñoom dinañ am jàmm di napp ñun dinañ am jàmm si suuf. bato ak ak gaal bokkul léegi bato exemple benn bato rek day jël mille gaal gaal di napp kon même bu ñu nee cent gaal cent bato wala cent cinquante bato ëpp na si géej quoi ëpp na si géej. pësal bato yi nga xam ne nii moom lañu wax ñu nappee fii ci Sénégal nag ñi nga xam ne nii ay nappkat lañ mareyeur ak ñeneen ñoom rafetlu nañ ko baax ñoom sax li ñu xam ne mooy seen xel dal na ngir napp gi dinañ ko yor ci anam yu mucc ayib. jërëjëf euh, Saliou ba tey sax xam naa ne du ñu génn ca géej ga ndax kat fa nga xam ne moo doon diwaanu Fatick am na fa liggéey boo xam ne nii waa ANA doon kuréel gu ñu taxawal ngir muy toptoo lépp lu jëm ci wàllu itam yarum jën yi ñu ngi koy amal foofu ngir tàggat fa ay ndaw ca Mbella ngir ñu mën a am itam xam-xam boobu am xàmmee boobu loolee nag mu nekk liggéey boo xamante ni dañ leen cee jàppale ci wàllu koppar ngir loolee nga xam ne moo doon xay gi ñu war a xay ak waggar gi ñu war mën a waggar mën a peeg itam la doon itam xam-xam ya nekk ci wàllu woowu loolu moo waral ñu am yénn jooju ñu teewlu ci Claire Diop doxalin bi di eh, dugg ci tegu pôle aquacole bu Mbelaka jaw nekk benn commune ci département bu Fatick ngir rekk tàmbali exploitation bi am na cohorte bu njëkk ñu toll ci ñeent fukk ak juróom ñaar bénéficiaire ñu tàggat leen ci wàllum pisciculture li ne mel ñu amal ko diirub juróomi fan. bi ñu ñëwee ci projet bi mu ngi ci ci formation projet bi mu ngi commencé woon le lundi. bi ñu ñëwee fii jàngal wax nañ ñu comment entreprendre ñu jàngal ñu wax ñu ci pisciculture wax ñu espèce u jën yi ñu war a mën a yar wax ñu sites yi ñuy sites yi ñu mën a def pisciculture wax ñu infrastructure mooy par exemple fi ñuy yaree jën yooyu wax nañ ñu ko wax nañ ñu aussi aliment bi ñuy utiliser mooy jën yi lu ñuy dundee ah, wax nañu aussi que ni jën jën bu nekk dafa war a am régime alimentaire am mooy façon bu muy dundee ak aliment bu mu war a mën a dundee bi ñu ñëwee aussi wax nañ ci feebaru feebar yi nga xam ne day dal jën yi ak traitement bi nan la ñu leen di def ba di leen di traité euh, yooyu tamit def nañ ko ci pour formulation aliment bi def nañ si TP boo xamante ni ko defee woon surtout ana bi ñu ñu nan lañuy defaree aliment bi jën yi di lekk. mu mel ni nag liggéey bi ñu ngi koy ndi bu baax infrastructure yi ñu ngi koy tabax. naka la ñuy xoolee nu la ñuy tànnee bërëb boo xam ne mën nañ fa yare jën eh, boo tànnee bërëb bi aussi naka lañ ngay defee seen bassin yi ñuy yare jën nan lañ koy defee ak nan la ñuy xooñtee jën yi ak nan la ñuy ci euh, l'habitude de dire euh, écloserie yi mooy foo xam ne mën naa ne man maa ngi koy faral di tuddal pour ñu xamul pour maternité bi mm-hmm. maternité jeune. waaw de di ak nan la bu ak bu loolu yépp jàngal nañ ko di jàngal parce que dañu bëgg bon aquaculture commerciale dañ jàngal aussi technique de gestion et managériale si module yi amoon modèle module mu di gestion économique d'une ferme aquacole. leneen luñ leen jàngal itam mooy naka la ñuy def ba wér yaram am ci jën yi projet bi nag nekk lu bees tàkk nekk li nga xamante ni itam ndaw ñi mën nañ see am xëy. L'objectif de ces cinq jours de formation visait à renforcer. atelier de formation bi juróomi fan la am atelier bi nag liñ ci jublu mooy fexe ba gën a tàggat xale yi ci technique pisciculture maanaam anam bi nga xam ne moom la ñu yaree jën yi ak anam bi nga xam mom moom wara ñu saytu aménagement infrastructure yi gëm naa tam ne module yi nga xam mom moom jangal xalé jàngal yi dinañ leen jappalé bu baax a baax ci liggéey bi ci fann bu ne. Vous qui êtes venus pour la formation, les bénéficiaires agence nationale aquaculture le Colo ak Enabel ci liggéey bile bénéficiaire yu bari nak dinañu mëna réaliser ces projet projets di aquaculture nek na secteur bi nga xamante dafa yaatu lool mo am ay copar yu bari yu Singuru Sénégal def ngir rek gëna ñongal itam gën ko suqali bu baaxa baax ci Sénégal. jërëjëf Claire ñi nga xam ne ñoo doon waa SONES ak waa SEN'EAU doon ñaari kër yu toppatoo wàllu ndox mi ci suñum réew dañoo dem ci diwaan bi doon diwaanu kees ngir xool itam ndox ma ñi nga xam ne itam ñu ngi koy jëfandikoo foofee ndax ma ngay yegg fañ ko war a yeggale ndax itam na war a mate mate na noonu ak ndox mi nga xam ne itam la jógee ci Kayes Mistra te muy jaar foofu ba yegg fii ci Ndakaaru ana nan la rigol yeeg tiwu yi tëddee ñu teewlu ci Fatou Mata Banel ba présentation bu jëm si membre association yu consommateurs yi usine KMS 3 liggéey ñu fa doon def te mu jëm si xëcc fa ndox mi ba mu yegg si fa noppi na léegi kañ li àll kalaj gi mooy xool nan lañ koy séddalee loolu dina tax ñu mën a dooleel nu ñuy xëccee ndox mi ba pare dajale ko mën koo séddale fu si mel ni dakaar Mbour wala sax Thiès. yokkaat nañ fi beneen mànd boo xam ne capacité bi million millions cinq cent litres la boo xam ne boobu dafa nu permettre nu mën a yokkaat fii suñu capacité de stockage mais tamit euh, tuyau yu nekk fii yëpp réseau bi tamit yokkaat nañu doole yi am na ay tuyo yu bees yu ñu fi def pour mën a renforcer tamit tuyau yi nga xam ne moom moo fi nekkoon. ba pare yeneen jafe-jafe yu nu amoon si yenn château d'eau yi nga xam ne dañ fi doon nekk te ndox bu nu doon am du doy loolu tamit KMS 3 dañu permettre pour nu dam aussi renforcer lool bu weesoo Mbour KMS 3 ndox. Pointe Sarène Mbodiène wala sax Joal waye tamit loolu fàttewuñu ci benn yoon yeneen zone touristique yi parce que fo dafa nek benn zone touristique bo xamné il faut que nous xool dans l'avenir lan ci war lan lan ci wara def au moins sécuriser la capacité de distribution donc c'est ça qu'on a fait léegi suñ jógee fofu aussi au niveau de l'aéroport aéroport fi mu nekk benn source lañ amone mais c'est comme projet Camestra bi on en a profité nous yokkat ci yeneen ñaari source bo xamné benn bi mu ngi jógee ci réservoir 5000 bu nu def au niveau de Diass

parce que ndox mu mucc ayib lañ war a am. loo xam ne du am benn dagg-dagg at loo xam ne da nga maam day ñëw normalement. rassuré nañu nag ci nga xam ne prélèvement yi ñu ngi koy def te fa muy jógee te fa muy jaar fañ koy stocké ba muy ñëw ci robine bi mais après robinet bi. prélèvement yooyu ñu ngi koy contrôlé ñoo am seen biir mais nag am na même ñoo xam ne bokkuñ ci. ñoom ñu ñu koy xoolal di ñu ko seetul te gis nañ ne baax na. association consommateur yi woon ci bile visite daal dinañuy sàkku ci kilifa yi ñu fexe ba ndox am fépp ci réew mi ci ay njëkk yu jàppandi. jërëjëf Amadou kon yow band boobu nga xam ne nii moom la ñu doon diggante te mu nekkoon ca kees xew amoon fa fa itam yow yaa ñu ko doon toppal ñu xam naa ne Fatoumata incha allah itam ñu ngi koy nuyu mi ngi di dallu ba tey ci wàllu xabaar. Euh, bés bi nga xam ni moom la ñu jagleel xeex bi ñuy xeex tawat ji di asma day am na dundal guñ ko doon dundal ci suñum réew moo waral itam ci hôpital bi ñu dippe Albert Royer te muy saytu itam ci wàllu wér-gu-yaram xale yi euh, kii doon itam day Kumba Njaay demoon fa ngir xool itam ndaje ma nga xam ne kilifa doon nañ ko fa daje ngir xool nan la ñuy mën a fexe ba mën a peeg la lañ doon pexe yi ñuy def ngir mën a saafara tawat jooju waaye laata loolu xamal nañ ñu ne daam si ci ni mu koy baaxoo di def ay bés bu nekk daf yoo amal bis yoo xam ne itam da ko gëstu jagleel jagleel ko ñi nga xam ne itam ñoo doon suñu mbokk yi daan njabootuk soninke ci ay waxtaan ak ay diisoo yoo xamante ni itam ak ay bés yoo xam ne dañ koy faral di amal ngir dundal seen cosaan ak seen aada ñoo taylu ci itam Dame Sylla mañ fa demaloon kompoxore li muy tekki ci po soninke moo di dëkkuwaay yoo xam ne daal ñëpp ko bokk ñu naan ko maison communautaire ci làkkum tubaab fu bare bari nag tabax nañ ko ci fii ci ndakaaru li ko tax a jug daal mooy ñi nga xam ne dañoo bokk ci communauté soninké te jugee fële ca village ba mën a am fu ñu dëkk ab diir laataa ñu am am liggéey ngir mën a demal seen bopp wala ñu war a jàll tukki ci yeneen i réew yu mel ni Europe. xale yoo xamante ne ñëw nañ fii amuñ fu ñu dal amuñu amuñu fu ñu dal amuñ fu ñu lekke waa dëkk bi ñoo leen di fat foofu di leen jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan mais soo demee nag ba commencé liggéey yow da ngay jot sa néegu bopp léeg-léeg sax mën nga jël néeg ci biir ku chambre comme bi. parce que dañ doon loué ay néeg mën nga jël néeg foofu nga néeg feneen bon su la neexee nga yóbbaale sa benn bokk mu dëkk ak yow ngay jël sa bool ngeen di lekk foofu bu njëkk kompa yi maanaam kër yi nga xam ne dañ ko tabax fii ci ndakaaru ngir mu mën a dalal gan yi nga xam ne dañoo jógee ca village ba li ko taxoon a jug daal mooy ñi nga xam ne dañoo war a dem europe mën a am fu ñu nekkandi en attendant ñuy dem europe wala ñu jóge europe ñëw fii ci ndakaaru laata ñuy dem ca village ba tay fi tey nag Kompo Xore yile ay étudiants ay ressortissants yo xamni ni dañoo ñëw fi ci dëkk bi ngir wutee liggéey ak itam sax léeg-léeg ñu jëfandikoo ko ngir amal fi ay dëj ak yu ni mel. Kompo Xore bi rôle premier moy lan moy mu permettre ñi nga xamni ne dañoo avant ñu dem France bobu temps visa sax dégg na amul woon ba ñu dem France eh, ñu nekk ci eh, ci Kompo Xore bi té duñu fay dara donc loolu moo doon premier rôle am tey nag rôle bi xaw na changé tuuti parce que léegi même xale yi nga xam ni amuñu fu jëm bu ñëwé transitoirement mun fa nek même étudiants yi sax am na ñoo xamni comme waxoon yoo xam ne prévoir nañu étudiants yi fuñu wara nek donc même les réunions par exemple réunions yi ay déjëg yooyu wala réunion de de communauté. comme compoxore yi nga xamni amal nañ ko fi ci ndakaaru nak ay cotisation ñoko ko ci ñoo xamni ne dañoo bokk ci communauté soninké danaka village bépp bo xamni ni bokku na ci ganjaga ak Xayre ku ci nek dal ci village yooyu am nga ab immeuble fi ci ndakaaru ngir mën fi dalal say gan dëkk yi nag ñëpp a ci bokk ku fa judd tey ak ak borom dëkk bi le chef de village ñoom ñëpp ko bokk kenn ëppalewul kenn mais boo fi nekkee sa devoir moo di nga participer ci ak loo mën duñ ne nag ku nekk la temps ngay joxe mais ku nekk la nga mën ci sa doole fi mu yem ci ngay participer ndax ñëpp ko bokk. ñi nga xam ne ñu ne dalal ci kër yi la ñu duppee compo xore du ñu fay ndox du ñu fay courant du ñu fay itam location yenn ci logement yi sax ñi nga xam ne daal nañ leen fa lekk ak naan ñu leen koy jox ñi nga xam ne nag dañu fee dal danañ fi nekk ab diir laata ñuy manal seen bopp ngir mën a demal seen bopp. avantage boo boo xamante ni loo xam ne joxe nañ ko il faut mu am lu ko ay sart ñu mën a teg parce que sinon dana am ñoo xam ne danañu xëy ëppal donc fekki fekk loolu lu ñu daan defee à l'époque nit ñi dañu daan yàkkamti commencé liggéey rek pour ut say jël seen bopp mais léegi ya fi demetul noonu bon xam nga nak loolu moo tax borom dëkk yi léegi commencé di réfléchir de xam ni lii suñu continuer suñ ko bàyyi nii charte bi day gëna a yokku te loolu sax loolu sax du du leen dimbalé parce que nit ki il faut nga nga nga nga nga nga farlu nga mun a nga mun a yore sa bopp. Kompoxore doona lu am solo ci duggante ak safonté ñi nga xam ni ñooy communauté soninké li tax na ñi nga xam ni dañuy juggé ci village ba ñëw fi ci Ndakaaru mën a nekk ci nekkin wu mucc ayib laata yalla di leen sutural ñu am ci lu nu jàpp. bo mën a demal seen bopp. daam kon tey li ñu doon indil moo doon Kompa Xore gën ñoo xamale ak moom mu nekk itam xeetu jàppalanteeg dimbalanteeg taxawante goo xam ne nii njabootu Soninké ñu ngi koy defal ci seen biir. Euh, ci Kaolack la ñuy dem ndax euh, fa nga xam ne moo doon diwaan boobu itam ca Saalum tàngoor yu mel na ni ñu ngi koy yëg foofee ba mu yëgg ca lool. tàngoor wi nag léegi-léegi itam ak pënd bi muy yee yenn xeetu tawat yoo xam ne ni tawat dënn lay doon moo waral l'hôpital bi nga xam ne moom lañ dippee El Hadj Ibrahima Niass te mu nekk foofee mel na ni nag ñi léeg-léeg yenn ña fa am yenn xeetu tawat yooyu ña nga fa te it ni mu ko nañ ne am na càllawle goo xam ne dox na ci diggante tawat yooyu ak li nga xam ne moo doon pënd bi ak itam tàngoor wi ñu teewli ci clair Diop fan yi dañoo seetlu ne file ci kaw Kaolack tàngaay bi ak euh, poussière bi bari na lool li ni nekk li nga xamante ni métti na lool ci askan bi ci wàllum wérgu yaram bi nag njeexital bi métti na lool bi ñu ñëwee ci l'hôpital bi nag euh, li ni mel dañ fi nemmeeku tax na lim bi nga xamante ni ñooy ñëw seeti docteur mu yokk bu baax. mban yi nga xamante ne la ngelaw li jaar ba yegg ci xëtër bi léeg-léeg euh,

ci jamono yii ne mel nag ñile nga xamante ni dañuy am jafe-jafe ci wàllu nokki dañuy sonn lool. malade yi nga xamante ne dañu am feebar bu ñuy woowee bronchite chronique feebar la boo xamante ne li ëpp book ci li koy joxe ci bu ñu seetloo tux la parce que tux dafa am malaan boo xamante ne mi ngi ci mbànn yooyu daf koy yàq. bu ko yàqee mën na jural nit ki muy sëq xàqandiku lu bari ba pare am jafe-jafe nooy donc feebar boobu aussi gis nañ ne. bu pic de pollution yooyu amee dañuy faral di yeew donc maladie seen fatte dafay gën a yokk sa xës dafay gën a métti dafay gën a tar donc ba tax na ñooñu aussi ay malade la yu ñuy gis ñuy ñëw fii file ci hôpital bu Kaolack nag dañ fi daje ak kii di Amadou Ba moom nag ba Kaffrine la jógee file ci village bu Lugiyama nekk ci département bu Koungheul moom ne tàngaay bi ak poussière bi nekk na li nga xamante ni daf koy sonnal lool. Jii nga ni ngay yéex nii man euh, depuis nawet daal euh, euh, duma dara duma góor comme ça suma yaram bi mu ngi metti lii dafa am ay ndox waaw ñu ne dafa am ay ndox waaw loolu laa ñëw ma seeti ko ci yéen ma yaakaar ko ci yéen ndax man ngeen ma ci jàppale ma génn ci ngir yàlla ak yolante bi boobu maa ngi ciy sonna lool. docteur wax Amadou Ba ak ñeneen eh, sax ñuy faral di moytu bu baax Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xamante ne am na lu ñu duppee observatoire yi nga xamante ni dañuy saytu bu baax qualité ngelaw li di si joxe itam ay alerte muy wax ne nañ si bàyyi xel euh, bu baax bu ko defee nag euh, ñu mën a def euh, li war suñuy génn nañuy sol masque yenn yi ñu war ko mooy tëndiku bu baax ndax kat ay jafe-jafe kepp la ñuy indil rawatina ci wàllum wérgu yaram. jërëjëf Claire ci soññe boobu ak li nga xam ne moom nga ñuy loo xel. Eh, ci diwaan bi doon diwaanu Tambacounda lu toll juróomi tonne ci ay ñam mba ay itam xeetu naan mbaa xeetu lekk yoo xam dañoo wariyee ñoom la fo waa service di d'hygiène teg loxo ñoom waa service d'hygiène nag doon kër nga xam ne ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu woowu ngir sell gi di leen xeeti ñam yi war a sell ñoom nag bañ demee foofe bañ leen tegee loxo yóbbu nañ leen nag ci barab yoo xam ne itam barab yu làqu la ñu taal leen ngir kenn bañati koo jëfandikoo ndax moytu lor yi ci mën a tukkee ñu teewlu ci ka nekkal ci diwaanu Tamba di Coro Jeng lu romb juróomi tonu marchandise yu nga xamante ni kenn waratu ko jaay waaye tamit kenn waratu ko jënd ñu dindi ko ci circuit de distribution bu diwaan bu Tambacounda marchandise yu bëri yi te am solo lool bokk ci li nga xam ne dañ koy jëfandikoo bés bu nekk moom nag teg nañ ci loxo ba pare daal di koy lakk lii ñi ko amal mooy agent service d'hygiène bu département bu Tambacounda. am na farin am na euh, boisson am na café am na produit daal bëri nañ.

mais du yomb parce que am na ñoo xam ne boo leen sensibiliser aussi du du leen tere ñuy def donc bu ñu leen jàppee aussi dañ leen di fayloo ay amende population bi aussi ñu ngi leen di yee sensibiliser leen waxtaan ñoom be ku kuy jënd produit nga xoolaat dat bi. département Tamba bi dafa yaatu te boo xoolee ñun euh, mattuñu bariwuñu ñu ngi def liggéey bi mais euh, aussi euh, métti na liggéey bi aussi métti na boo xoolee département bu toll ni Tamba fi ci sous brigade d'hygiène bi on on a quatre agents d'hygiène pour faire tout le départ pour ñu def département bi yëpp. ci produit yi ñu tek loxo te lakk ko bëri na ci lu nga xamanteni xalé yi dañ koy jëfandikoo bokk na ci chips bokk na ci boisson sucrée ak yenn jus de fruits Lolo tax ñuy ñaax ñi nga xamni ñoy ñooy kat yi lepp lu ñu yorate ci produit lu ni mel ñu koy faral di vérifier ndax date ba jeexul waye tamit di xol condition de stockage yi rawatina fii ci Tambacounda nga xamni dafa tang jërëjëf Coro bu ñu jógee Tamba dañuy dem ca euh, fi nga xam ne moo doon Matam fekk fi Ibrahima Papi ji ndax dañoo demal ca Agnam ndax am na équipe boo xam ne nii ayoo bu Agnam lañ koy tuddee ayoo boobu bu Agnam nag dañoo am ay jéego yu am solo ñuy def ci ba am itam daanaka yeneen faneen fu ñuy yegg ci wàllu football moo waral Ibrahima Papi jooju xam ne équipe boobu na mu jàmb rek na mu laaxookat bu ñu defee manoor ñuy mel day jar sëkk itam ñu def ko ite ngir gën koo xamale ak askan wi ñu teewlu ci Ibrahima Papi jooju daanaka ñëpp ñoo ko rafetlu rawat na ñi nga xamante ne seen xel dafa màcc ci wàllum football. te lii ku gis xam ne liggéey la liggéey la loxo mu ngi ci biir donc je pense que yow rek munoo def lépp na la gars yi jàppale parce que équipe bi su yéegee mu dem ci niveau 1 bi defe naa ne loolu. Mm-hmm. fierté dëkk bi la. Mm-hmm. te dina fekk dëkk bi dañu mën a di am équipe buy joué ci Ligue 1 bi ci ligue bu gën a mag. et je pense que loolu war nit ñi war nañ ci mën a jàpp. ngir équipe boobu mën a taxaw a waaye tamit dem fu gën a sori. laaj na tamit mu amaat beneen taxawaay félicitations déjà pour ñoom je pense que c'est une bonne chose donc ça veut dire que Ligue bu baax mu ngi si si gannaaw liggéey bu baax def nañ ko def nañ ko si gannaaw staff technique bi mu def il faut ñu continuer Ligue bi et que xam que national étage bu jëm division bu ñu jëm supérieur division bu donc là il faut encore beaucoup plus de travail jéem renforcer équipe bi indi suñu mënee jëm jëli recruter ay joueurs yoo que national une ligne ñu nekk nga que des leen gën a mën dinañ may expérience et surtout y aller avec beaucoup d'humilité et ne pas être trop gourmand c'est dire que dañuy ñëw pour réussir monter encore. C'est possible, d'accord, c'est possible, c'est en football, mais il faut y aller doucement par Mais déjà, premier, première étape, moi, euh, assurer le maintien en National 1. Je pense que ce qu'on a fait, ni continuer de liguer, de progresser, de gagner en expérience, que d'ici quelques années, nous allons découvrir aussi étage supérieur, Inch'Allah. ngir ñu en yan de la ñu footballee ak tamit seen dugg bi si National 1 loolu tax nañu dem fële si Agnam fi nga xamante ne équipe boobu fekkee baax. ci seen terrain bi ñu fa fekk joueurs yi di entraîner donte ci terrain suuf lañu footballé terewul ñu ràññee benn cawarte bu am solo lool ci ndaw yooyu lee équipe añaam bu njëkk ba benn gis-gisi la woon. liggéey booloo euh, dontale jafe woon na metti woon na guddoon na mais sacrifice tout un chacun euh, bàyyi sa sa kër. ce sa climat bu apaisé woon ak yëpp ñëw ci eh, canicule beeg yop mais l'igue rek moy fay moo yalla def na sutura ba tay ñu agsi fi na agsi quoi déjà académie amna fi parce que eh, président objectif am mooy déjà goosu région ñu ñu ñu former leen pour que euh, après ñom ñu mën gérer relève te lolu déjà entamé nañ bo gisee amna déjà ben détection bu ñu jotoon def ba y a des gosses qui viennent de euh, ñoo xamante ne jóge nañu Ourossogui Ndendori Matam euh, Joolol ak ak ñoo xam ñu ci Agnam ci Logn ba Orefondé am na ci ay gosses yoo xamante ne incha allah à partir de saison prochaine dinañ mën a compétir en cadet en junior incha allah. atii di dem seen bëgg-bëgg bi gën a rëy bokkoon na ren sax si coupe Sénégal laataa ñu éliminé leen ci seizième de finale waaye terewul jamono bi. région bi yëpp mu ngi bàyyi xel bu baax a baax ci bile équipe seen dirigeant yi ñoom de kontante rek la ñu am. waaw liñ ci gën a ràññee mooy que ni dafa nekk équipe bi nga xam ni équipe bu biir kër laa ko mën tuddee maanaam fa famille te yaakaar na ne añam yëpp bëgg nañ ñu sentir que te yaakaar na ne ñu si gis seen bopp. te loolu mooy liggéey bi nga xam ni zone Fouta bi ñëpp ñu bàyyi xel ni équipe bi seen équipe la te résultat yi dina dina gën a mën a améliorer ci kanam. parce que ku xool xale yi état bi ñu nekk fii xaw na compliqué terrain bi xaw na compliqué y a tout donc que ni je crois que ni ñoom bu nu góorgóorlu tuuti rek dina ci am lu weesu seen njort et aussi liggéey kese moo am njëriñ quoi te xam naa ni euh, nekk na ñi nga xam ni euh, seen gis-gis. du coupe du Sénégal du yem fi en national 1 ou bien pas mo yóbbu équipe bi ba nga xamni tay euh, zone Matam bi yëpp daanu ni fu ñu waxee jaraaf wax Hayo des Agnam incha allah rabi. non am nañ si contentement bu reuy parce que jóge national 2 ñew enchaîné waat ñew national 1 loolu benen affaire la mais na kenn mësu ko def sax.